nuyu maa ngi koy général Baye Abdourahim Seck di ko ñaanal yàlla na fi yàggati wér di ñaanal di ko dale ci Alpha seen directeur ba ci ki ci gën a xale maa ngi ñaanal ñëpp di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm mboolem population Thiénaba maa ngi leen di nuyu bàyyiwuma kenn mag ndaw góor jigéen le 8 mars bi moom mbirum jigéen la bisu jigéen la soo gisee ñuy def 8 euh, euh, mars mooy màggal jigéen mooy bis bi nga xam ne moom moo gën ci moom lañu gën a yëg ci ñu ñi jigéen ndax dañu koo cërale yàgg nañ ko dox nag yàgg nañ koo feete di di ci def di ci wane suñuy jaar-jaar ak suñuy pexe mboolem jigéen ñoo xam ne dangay liggéey ci domaine boo mën a nekk 8 mars foo mën a nekk daal sa domaine la. waaw 8 mars daal ñun lañ ko cëralee woon ñun jigéen ñi. moo waral ñuy wax 8 mars. bépp jigéen foo mën a nekk. ci li may njëkk a wax bala ma àgg ci liggéey ak góor góorgóorlu may ñaan jigéen ñu nekk foo mën a nekk ci sa sëy nga fonk sa sëy loolu laa njëkk a wax fonk sa borom kër fonk ña fonk say dëkkandoo tamit su ma jógee ci loolu may wax jigéen ñu nekk foo ne dangaa war a góor góorgóorlu ndax góor góorgóorlu dafa baax ndax jigéen mooy ndey ndax bu nee jigéen doomam yaa ngi ci ay rakkam a ngi ay magam a ngi ci ñëpp a ngi ci te jigéen moo yor ay doomam bu góor mënul jigéen mooy takk sëram gis nga ko léegi ci kër yi soo demee sax kenn dootul xool ni sama boroom kër man na wala mënul yow soo xëyee fajar yaa ngi liggéey ba ngoon nga wàcc ñëw lépp pour sa njaboot ak sa borom kër ndax jigéen ñu ne damay tàllal sama jëg sama borom kër dama defal dëgg la sax dalaa war a defal waaye solo la defalul it yow war ngaa góorgóorlu defal def njaboot gi ndax yéen ko bokk te te itam ma di ci dolliwaat tamit li ma waxaat mooy dëkkandoo dëkkandoo lu am solo la jigéen war naa sàmm dëkkandoo ndax kenn ku nekk soo mënul sa dëkkandooy taxaw soo jaaxlee sa dëkkandoo mooy taxaw kon kenn ku ne foo neew na nga xool say dëkkandoo te itam jigéen moo war a yar yar bi mooy ñu yar xale yi ndax sa doom bu yaruwul dangay am problème ëllëg ki si biir fu mu ne dañ naa doomu jaam doomi diwa waaw wala bu yàqoo ñu ne ko liggéey waaw kon nag yar bi lu am solo la ñu góorgóorlu yar suñu xale yi waaw yar xale yu góor yi yar xale yu jigéen ndax xale bu jigéen di ko yor tamit nga yar ko ci néegu sëyam ak na muy doxale moom ëllëg bu jógee ci mu xam na muy doxale xale yu góor yi tamit nga yar leen dina ñu yore ëllëg kër wala fu ñu mën a nekk ndax léegi gis nga ko émigration clandestine baa ngi fi dañuy dem feneen di liggéey maanaam sax dañuy paasal seen bopp dem bitim réew te boo fa nekkee war nga am comportement yoo xam ne ni yu wér la yoo xam ne yu ñu taamu la nga xam ne yow la la yëkkati xam nga ko bu dee fii tamit da ngay génn dem liggéey wala nga génn dem jàngi surtout ci wàllu éducation bi tamit alxuraan a fi araab a ngi fi nasaraan baa ngi fi muy français lépp baax na lu lu ci mokkul nga yóbbu ko ci la ca des maam yi dañ daan wax naa soo juree sa doom la ngay jëkk a def nga dem jàngali ko alxuraan kon bu bàyyi jàngalewul nga yëkkati sa doom yóbbu ca daara ja boo ko boolee français bi lépp benn la lu mu ca mokk rek sa njariñ lay doon bu dee xale yu jigéen yi nga teel leen a jàngal waañ teel leen a jàngal nu ñu doxali seen néegu sëy ndax àddina xamuwul xale boo ci yóbbu ñaari fan su doxalee naka si dul noonu su desee sa sa problème rek lay doon waaw may may ñaan ak sama moroomi jigéen ñi lépp lu ñu doon def ñu yokk ko domaine boo xam ne mën nga caa lu liggéey ca nga di ca tës tësi ndax góorgóorlu mooy dindi a ñàkk ndax mënoo toog foo toll di tàllal sa loxo naan defal leen ma defal leen jigéen ñi sax bàyyi nañu loolu balaa sama moroomi jigéen ñi dama leen di ñaax di leen ñaaxaat te surtout nag ci kër yi ak seen doom yi njaboot yi ñu di leen yar yar bu baax di leen toppatoo toppatoo seen borom kër yi toppatoo seen dëkkandoo yi tamit dëkkandoo dafa am solo soo nekkee nit amul soo amee nga dindi jox ko waaw ñi ñàkk bari na léeg nga gis koo xam ne yaa ko tane bu dee ceeb nga dindi may ko bu dee loo xam ne seet nga ni ab saabu amu ko nga dindi may ko waaw man daal lool laay ñaaxee sama moromu jigéen ñi waaw loolu laa leen di ñaaxee. ñu góor góorlu ci diine tamit tax mm-hmm. ëllëg ki si biir mooy mujj mm-hmm. waaw fu waaye mën a nekk waxtu wi juróom bu mu la raw loo mën a liggéey lu mu loo ca kii kii la nga bul fàtte waxtu wi juróom nga dem julli mm-hmm. loo xamul it nga laajte ko ndax daara yi bari na ñu de dañoo sant yàlla ndax cene bu gi nekk daara yaa ngi alxuraan lañu xam julli jàpp topp sa diine topp sa waajur topp sa boroom kër waaw topp say boroom kër man daal lool laa xam nan yar njaboot gi waaw nan yar njaboot gi yëpp fànn te fonkaat suñu dëkkandoo waaw man loolu laa xam man daal lool laa doon ñaaxe sama moroomu jigéen ñi may ñaan nag suñu bis bii nag yàlla nañu dund dund dund ba tey jii nañu ko bëggoon a def sax amaana mënuñu koo am ndax xëy na itte yi fi am waaye nañ ñaan yàlla yàlla na fi jële feebar bi mbas mi yàlla na fi jóge